ah di ñëw rek di waxaat euh, bismillahi rahmaani rahim damay dellusiwaat rek ci journaux yu bari dikk nañ ci ñëwaat ngeen ci ci seen jàngat mbirum Pape Alé ñaa defe naa gën na cee fees tey mm-hmm, mm-hmm. leneen li mbirum euh, footballeur boobu la loolu xam naa naa ko bàyyeeg euh, yenn gars yi gën a topp espoor bi ñoom ñu indi ci seeni jàngat waa ji daal xam naa ne moom siiw na lool footballeur boobu. Mm-hmm. léeg-léeg ma demee tukki ci bitim réew. Mm-hmm. boo ne Sénégal rek waa ji lañ lay tuddal. Mm-hmm. Sadio Mané Sénégal Sadio Mané. xam naa daal bitim réew daal moom. Euh, bëgg nañu football lool ñoomit it ni ko sénégalais yu bari bëggee. mais mbirum euh, journaliste bi li may njëkk a wax bokk na ci. baatu dañoo war a weesu di tëj journaliste ci Sénégal. loolu moom waxu tappale la. il faut ñu teg ko ci suuf. journaliste gënu la tedd sëriñ daara wala imam wala mécanicien wala tôlier wala menuisier métallique wala benn tailleur wala commerçant wala benn technicien ba ñooñu ko ci def lu def wul war nañ la tëj ab journaliste kenn warul la tëj hmm. loolu moom wax la ju yàqu euh, am na yu bari nag yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla ñoom ubbil nañ leen ci porox ndoll yoo xam ne nañ ko ñeneen ñi ba nga xam ne président bii toog tey waxoon na ci télé tubaab ya ne ba mu toogee ba léegi tëjul benn journaliste Sénégal tëjuñ fa benn journaliste loolu mooy dellu siwaat rek ba tey di wane problème justice ci Sénégal maanaam Sénégal justice mooy lan mooy kan ndax justice mooy ñi jàng am xam-xam di àtte wala justice mooy président de la république ndax bu fekkee yow yaay toog di avouer di wane ne kan man bi ma toogee ba léegi tëjuñ journaliste kon tëjëkkati ji ci sa loxo la nekk mais nekkul loxo justice ndax ba nga toogagul am na koo xam ne nii am na ko fi nekkoon nguur gu fi nekkoon am na journaliste yu ñu jàppoon tëj leen yow nga ne bi nga toogee ba léegi tëjuñu journaliste léegi kon day wane ne tëj ak tëj ci sa loxo la nekk loolu lu ñu war a régler la ci senegal fekk justice bi bàyyiwuñu ne seen i bopp seen bopp lu dul justice nekk loo xam ne buñ ko tuddee état bi moo jël loxoom naj ko téye ko te ba léegi loolu teggeekuwul ci Sénégal nee naan li foog ñu liggéey ba gëmloo Sénégalais yi ne yoon ñëpp ci yem. mu bañ a yem rek ci waxu kese waaye ci waxu kese la yem jamonoy Senghor ku Senghor bëgg tëj tëj la jamonoy Abdou Diouf ku mu bëgg a tëj tëj la jamonoy Ablaye Wade ku mu bëgg tëj tëj la ba jamonoy Macky Sall gii ku mu bëgg a tëj tëj la looloo fi nekk ba tey changé gul te opposition yi wax it seen discours boo ko dégloo bu ñëwee it sos lay doonaat ku ñu bëgg a tëj tëj la ndax koo xam ne faloo goo yaa ngi wane ne bu ma faloo képp ku deful nangam ci àllalu réew mi danga dem ci yoon danañ la dugal ci kaso yaa ngi wane yow it boo faloo da nga nar a continuer tamit yor justice bi di tëjëkkati ji rek kañ la ñuy dem ba sénégalais yi justice moom boppam léegi nag bu moomee boppam wax dëgg fa yàlla defe naa cool yi du bari li tax cool yi bari nag kumba am ndey gi laa kumba amul ndey gi nekkul problème mu journaliste bi war nañ ko tëj ak waruñ ko tëj confrères yi ku nekk jug sa normal waaw sa normal li ñaan ko yéey moom ba yéey yaxu ñëy xam ne yéey nga yaxu kat wala yaxu gaynde xam ne yéey nga yaxu yéeykat kuy jàpp it ba jàpp waxkat cool yi dana bari waaye lu coow li bari bari li ñuy njëkk génnee ci xelu nit ñi rek mooy ab journaliste dañoo war a weesu di ko tëj pour lan ñuy weesu di ko tëj bu defee lu deful dañ ko war a tëj wax ji nag mooy léegi moom kii tey ñi far ci far ci nguur gi jóg naan dañ ko war a tëjeey démb ñoom waa ji même position bi la amoon te waxuñu woon nañ ko def dara foofu la wax ji yëpp nekk Sénégal fii la ñu nekk avant 2012 gisoon Pape Alé Niang mu jëloon même position yi ci ay révélation ci dalal ay opposants président Macky Sall mii palaatoom ca 2STV ba léegi nit ñaa ngi jokkalante vidéo yi Pape Alé dalal ko tey rek maa ngi xëy di dégluwaat palaato boobu ba ba président Ablaye Wade war a def discours discours bi yéex a jàll président Macky biñ ko dalalee loolu la ubbee ne waa président boo xam ne yaa ngi war a def discours depuis heure sàngam ba léegi dafa gooku loolu li muy wane nekk lu baax maa ngi déglu président de Macky Sall mu continuer ñu koy poser question di ko wan wër nga Sénégal dem nga lu mat dox nga lu mat juróom ñett fukki junniy kilomètres ci biir réew mi wër nga lu mat ñeenti junniy dëkk ci biir réew mi léegi bi nga defee loolu noonu yëpp luy jubluwaay beeg loo gis mu ne jigéen ñoo xam ne nii lay gis seen loxo yi dañuy am kersa nuyu ko ndax dañ naan ko président seen loxo yi dafa wow ndax dëbb bu métti ak soq looloo tax duñ ko mën a nuyu muy wane ne loolu dañ ko war a dépassé moom bu faloo alalu réew mi danañ ko sakkanal ba fi mu war a dugg mu dugg fa ba loolu noonu le duñ ko gisati ndax lii rek la loolu mooy dëkk yooyu yëpp am courant ba muy wax loolu noonu le Pape Alé Niang mi moo ko dalaloon jamono yooyu noonu le lay Wade ak ñi mu àndal ànduñ woon ak Pape Alé Niang ci ni muy doxalee ak ñii muy dalal nii ak lii ñuy wax waaye boobu noonu la ña ànd ak président Macky Sall tey ñu ngi ko doon wax way Pape Alé way waaw yow yaay journaliste bi gën a mag nga xam ne nii yaa ngi def sa liggéey ni mu waree ni mu jaadoo ni mu jaadoo ah ñun ñu ngi fi woon de di déglu Pape Alé Niang bi président toogee nekk président amoon na position na ñeneen ñoo doon def ku mel ne Souleymane Jules Diop ak ñeneen ñu mel ne ñoom mu dem def ñooñu mooy mu dem mm. bokk ci gato bi ñu sedd ko waaye lañ gis li may wax nag amul ma sàmba ak ma demba kuy euh, tee a wax ko de nee naa kenn moomu damay analyser mën naa juum nag mën naa wax lu waaye suñu xel yi moom dañ koo moom te li ñuy wax euh, dañ koy wax mën nañoo juum nag mën nañoo bañ a juum waaye buñ fi nekkee di wax di analyser yi lii dëgg dañuy jéem a tracer loolu noonu la wane ne lii mi ngi fi fi la ñu fekk avant 2000 am na journaliste yu fi nekkoon di ab lay wàdd di dal ci régime am di def ay révélation mais ana monsieur le pilim Abdoulatif Coulibaly révélation yii nii ñuy wax ne moom la Pape la Niang di def Abdoulatif Coulibaly ko d'accord a def ndax Abdoulatif Coulibaly Abdoulaye Wade mos na koo tëj ci kaso bi ñaata yoon la Abdoulatif Coulibaly bind livre def ci révélation yu grave man Abdoulatif Coulibaly dafa bokkoon ci ñi nga xam ne du wax lu dul ne fuñ ko invité maa ngi koy déglu jamono yi rajo yi lañ gënoon di déglu. Mhm. maa ngi rappelé wu dañ daan def 11h Sud Sud FM. émission bu daan am 11h. dama daan war a joxe ji cours nekk ci car rapide wala ci Njaga Njaay di déglu Abdou Latif Coulibaly A ba Z. muy def ay révélation yu grave ci ndëngate gu nguurug Ablaye Wade doon doxal. mais livre yooyu danaan génn coow li mën naa bari mais livre yi tas na ñu koy dalal ci palato yi muy wax. ñi nekk ci pouvoir bi di dal ci kawam opposition bi ne ko wéy. Abdoulatif Coulibaly moomu tey ban livre la génnewaat déedéet bi président Macky Sall toogee tey mi ngi ci gouvernement bi jàpp njàmburam nee na léegi li mu choisir mooy nekk politicien nekkatul journaliste buy def liggéeyam waaw léegi Abdoulatif Coulibaly avant président Macky Sall Ablaye Wade dal na ci kawam président Macky Sall ñëw na dem na bokk ci nguur gi Souleymane Jules ca kanadaa talaata ju jot mu génn def ay révélation yu grave ci nguuru Ablaye Wade lu nekk mu wax ko bi président Macky la ñëwee mu jógee ko kanadaa ñëw dagg ay rassaam wat boppam ne mi ngi jéggalu kilifa diine yam daan attaqué ñu jël ñe jàpp nañ ko sax yóbbu ko ci yenn kilifa diine yam daan attaqué mu jéggalu leen tey toog na jàpp njàmburam mi ngi ci nguur gi ak yeneen i journaliste yu bari Pape Alé Niang même occasion boobu noonu la amoon ci jamono yooyu noonu la su ko neexoon moom it mu ne ah président Macky Sall nag mel naa ne jàppale naa ko gunge naa ko dala naa ko ci palaato wax naa euh, ak sénégalais yi ñu déglu ko ñu déglu ko mu jàllale programme am ba léegi nekk na président damay dem nag jege ji ñu jox ma ci gato bi te laa laajoon ñu jox ko waaye dañ ko gisaat mu yor même posture bi mu yoroon mooy toog yor pilimam di xaar lu mu gis lu jaaduwul mu dénoncé ko moom mii ñu naan tey dafa ànd ak ab sonkoog wala opposant même moom miim la ñu waxoon démb moo àndoon ak opposant yi kon kay dañuy xam ne kooka changé wul doxalin waaye doxalinam moo am ñu mu arrangé ak ñu mu arrangé wu lii nañ ko fàttali c'est important dossier ba la mu def la mu deful ak la mu wax ak la mu waxul nañu delloowaat Pape Alé Niang 2012 indiwaat Pape mille vingt 2022 ñu seet ñaari Pape Alé Niang yi ndax dafa am coppeeku ci diggante bi. même personne hmm? même personne la. ndax dafa am soppeeku ci diggante bi balance bi foofu lañ koy teg ba noppi ñu sincère nag ci ni ñuy analyser bu boobaa mën nga ñëw ni dafa juum. nekkul ne damay ànd ci ay jàngatam tout le temps wala ay analyse am déedéet comme ni nga xamee ne man it bu ma dégloo wala ñu bari ku may déglu man nga bañ a ànd ak man man tamit même chose mën naa ko déglu ànduma ak moom ci yu bari waaye nag du tee nag dëgg yàllaa ko moom yaa ayyuhal lazina aamanu kuunu qawaamiina bil qisti shuhadaa lillah am na loo xam ne ma Masamba moomu ko ma Mademba moomu ko Pape Alé ñaam moom mooy yor posture damay taxaw yor alerte gouvernement manaan leen du nii jéem a nekk ak population bi di def ay révélation ba muy journaliste ba léegi bu fekkoon ci diggante bi changé na am neneen nu mu doxalee bëgg a dellusiwaat am lu mu wane fii laay taxawaat ne ko ah, xanaa tey la waaye yow nangam ak nangam waaye li may wax nii xëy na am na ñu ma ko gën a xam am na ku ko fàtte woon pour ñu fàttali ko ko c'est important am Pape Alé Niang tey mooy Abdou Latif Coulibaly ndémbu léegi nag mu des Abdou Latif Coulibaly révélation yam doon def lu tax Abdoulaye Wade tëju ko woon lu tax justice woowu ko woon su ma ne Abdoulaye Wade tëju ko may dellusiwaat ci li ma wax rek palais de la justice ak palais de la république dañoo sëy ñoom ñaar sëy bi tasagul moo tax may wax lu mel noonu ndax président moo fal procureur de la république bu ko neexee mu folli ko moo fal de la justice bu ko neexee mu folli ko ba léegi kon loxo te loolu ma magistrat yi ñoo ko wax loxo nguur gi dañagul ci loxo àttekat yi léegi nag loolu noonu le boo ko jëlee mënoo koo fàtte Sénégal nag léegi li xew mooy kii wax daal fekk li muy wax mi ngi ma arrangé ma ne waaw waaw góor yaa nekk ci dëgg way yow ku ñeme dëgg nga ñu ci bari léeg leen ñu wax waaw yow nangam di wala diw sàngam ko ñeme dëgg nga li ngay waxaleen arrangé rek heure boo demee ba wax lu arrangé wul kenn ka la doon taxaw naan la wax katu dëgg nga mooy dal ci sa kaw mu dellu siwaat ci li ñu wax ne maam borom Touba loolu la doon wax bëgg lu baax ak bëgg sa bopp du benn ñu ne ko mbàkki lan mooy bëgg lu baax ak bëgg bëgg sa bopp mu ne bëgg lu baax de mooy lu baax loo dégg foo ko déggee rafet lu ko kontaan bëgg sa bopp nag mooy lu baax loo dégg fekk defoo ko doo ca bég keneen ku ko def doo ci kontaan loolu mooy bëgg sa bopp gars yi tamit dañoo bëgg seen bopp rek mais bëgguñu lu baax ci waxin mooy tey képp kuy wax ñu gis ne kay wax la muy wax arrangé na leen ñu ne yow ku dëggu nga ku ñeme dëgg nga waaye heure boo laalee lu jëm ci ñoom la ñu def ci naka su dul noonu ka taxawoon naan la ku dëggu nga mooy taxaw ne la naafeq nga looloo xew Sénégal loolu nag il foog ñu jëm ko raxas Sénégal nag li fi nekk moo fi nekk ba tey mooy nii la mbir yi séddalikoo dafa am ay journalistes yu ànd ak pouvoir am ay journalistes yu ànd ak opposition bi lii moo fi nekk mooy réalité bu la neexee Pape Alé Niang nga ne journaliste la bu ànd ak opposition bi mën nga ko wax waa léegi ci geneen wet gi am na journaliste yu ànd ak pouvoir bi journaliste bi fi jote woon ak euh, procureur wala juge bi mu fi jote loon bañ demoon ci yoon bu doon Pape Alé la tey lan mooy xew waaye journaliste boobu ñaata révélation la def la def ñaata attaque la def jëmee ko ci ab opposition lan moo ko ci fekk dara fekk ko ci dugg ci biir xeetam attaqué xeetu lëmm am loo leen taxé mais loolu noonu la bu procureur defoon liggéeyam journaliste boobu dañ koy woo ni ñu wooyee Pape Alé Niang teg ko li yoon wax ndax am na loo xam ni lu mën a taal am réew la journaliste bu yor pilimam di attaqué xeet lëmm ci Sénégal te ñu nekk ay sénégale mais journaliste boobu noonu la am na fu mu féete am na yeneen i journaliste seen pilim ñëpp xam nañ ne am na fu mu féete waaw léegi bu fekkee am na journaliste bu xee bu féeteeg pouvoir ñi nekk ci opposition bi attaqué ko bu amee ñu fóoti féeteeg opposition bi ñi nekk ci pouvoir attaqué ko léegi loolu après dañu xam ne mbir yi jagagul ku nekk jéem a defar sa toogin rek léegi nag bu amee ñaar ñooñu ku nekk mën nga def sa soi euh, ne man damay ànd ak pouvoir wala opposition loolu yow yaa def sa soit sa déontologie liggéey laaju la ko mais mu des nag àttekat bi moom nga xam ne sénégalais yépp la fi toogal moom naka la war a tracé kii ànd ak pouvoir na ko bàyyi mu ànd ak pouvoir mais bës bu wàccee yoon day jël yoon jiñ jël dénk ko ko mu dal ci kaw kii ànd ak opposition bi na ko bàyyi mu ànd ak opposition am la mais mu koy xaar ba mu wàcc yoon bu wàccee yoon mu jël li yoon wax teg ko ci kaw li indi coow li yëpp Sénégal du problème mu laal nañu diw bàyyi diw mooy kumba am ndey gi ak amul ndey gi su fekkoon ku féeteeg yow bu defee ñu def ko ku féeteeg keneen bu defee ñu def ko kon amul dara coow lay bari rek mais ku ñu jàpp dañ laa war a jàpp ndax ñëpp a yem ci kanamu yoon mais Sénégal ba léegi ñëpp yemuñu ci kanamu yoon mm-hmm. maa ngi koy wax keroog ci émission daayira bi xoolal Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne xam naa leen moo tax ma leen di mm-hmm. la ñu def <laughs> fausse nouvelle ñu jël leen yóbbu leen instruction mm-hmm. téye leen ay weer ci kaso bi àttewuñ mais fausse nouvelle ku ko joxe li gën a jaadu mooy xam nañ li nga def dañ la war a yóbbu àtte la xam lan ngay tëdd mais Sénégal léegi ngay gis ku jël kurfañam tëgg ko jigéen ci kanam kanam gi toj néew yi ñëpp gis ko image feeñ ñu coow ko ay fan jàpp yóbbu matuli fan ñu àtte ko tëj ko benn weer bàyyi ko muy doxi ay soxlaam mhm. bu doon keneen xam kii moom daa wax ñu ne li wax du dëgg moo tax ñu tëj ko ay weer àtte ko kii moom saaga na wax na jël na kurfañam boole ci dóor jigéen kooku ñu jàpp ko matul semaine ñu àtte ko mais lu doy waar ci senegal ñaata weer lañ koy tëj ñu ne benn weer kooku tëj nañ ko ba tijji ko lan moo tax euh, dossier bi gaaw ah, waaw fu mu far. Hmm. kan lay défendre ñan lay saaga ak ñan lay bàyyi. six mois de sursis. Hmm. mais léegi six mois de sursis ci ku jël jigéen tibb ko kurfañ ci kanam mu tëdd benn weer kii moom dafa toog rek def lay fa wax lu dul dëgg. Hmm. am na ci ñoo xam ne nii ay caricature lañ def ci ay journal revue de presse caricature ñooñu daanaka léegi ñu def di mois ci kaso bi. waxaguñ ci seen dossier pour àtte leen xoolal Cheikh Omar Diagne bi ñu ko njëkkee jàpp ci mbirum Jibril Waar la jote woon jote loon mais àtte wuñ ko dañoo xëy bàyyi ko mu dem dañ ko téye ay weer ba tey kenn àtte wu ko ñu xëy bàyyi ko mu ñibbi këram xëyaat nañ léegi jàpp leen ñu ngi leen téye ci kaso ba léegi ay weer waaw léegi buñ toogee di jàng sóoratu sóoratu sóoratu ñëpp a ci kanamu yoon amul kenn kuy jaay dara lu dul yoon dana dal ci sa kaw mais saar bi dañ naan la man suux na nag wala saar bi doo xajatul ci kaamil bi kaamil bi mat na hmm. xat mu nañ ko ba pare hmm. kon wax dëgg fa yàlla ñu ngi Sénégal nañu jéem a honoré waat justice bi nañ ko jéem a honoré waat man de du ma wax mukk ne kenn ku féeteeg man def naka su dul noonu wax naa ko keroog ci daayira bi mbirum ñum Abdou Karim Cheikh Omar am na ci ndorte li kenn dégg ma ma wax ci ba ci jamono yi laaj soog di di wax di comparer. Mm. pourquoi ñoom àtte wuñu leen te ñii def nañ ñu àtte leen teg leen lu woyof bàyyi leen waxuma ne waruñu leen a jàpp waaye dama ne pourquoi àtte wuñu leen. Mm. booba léegi ñu téye leen ci kaso bi ak ñeneen ñu mel na ñoom. léegi daal opération bale moo mel ne moo bëgg a xam moo bëgg a xew opération bale opération bale mooy am na koo xam ne daal képp ku affiché wu ne da nga féetee ak moom wala da nga koy défendre duñ la may dara. waaye nag boo féetee geneen côté gi moom dina nag leen di défendre di wax ci ñoom leneen loo wax ci keneen lu woyof lañ lay teg wala dara du ci mujj lii baaxul ci am réew te jëmul kër loolu laa amoon ci lu ma ciy jàngat. Mm. delluwaat di wax ni amul journaliste buñ ñaan kenn waru koo tëj dañoo war a weesu yu tëji journaliste ah kay waruñ ko weesu de dañ naan kay na ñëpp yem rek journaliste bu farfaleeg bu leen ñeneen ñëpp a far ku nekk am na foofii ci booy jàngat am na ñu neutre nag di def seen liggéey waaye nag am na ñoo xam ne ku ci nekk xam nga ne bu waxee wala mu dox am na ku muy ragal ginnaam ak ku muy bàyyi ginnaam journaliste toog na fii ci télé ñëpp di ko dégg mu ne man du ma parti sangam ñoom diw du ma dalal fii maa fi dalal ku ma neex ko kay far na wane na ne moom am na ñu muy dalal ak ñoom du dalal te nee na journaliste la may firndeel li ma wax ne am na ñoo xam ne wane nañ ne dañoo am fuñ far amul problème bu la neexee gannaaw léegi seen métier la mu laajoon defatuñ ko mais mbir mi seen bànneexu bakkan la seen pilim ñoo ko moom seen i micro ñoo ko moom ñooy seet ku ñuy bind ci moom lu leen neex wala ku ñuy wax ci moom lu leen neex loolu ñoom nañ leen ci bàyyi waaye yoonu réew mi nag waru leen réew mi warul ñëw moom fekk ku far mu ne damay far ak yow ndax fii nga féete yoon ñëpp ci war a yem dafa war a nekk lu ñuy doxal ci dëgg waaye pas mu nekk lu ñuy wax kese rek bàyyi noonu mu jàll su loolu amee amul kenn koo xam ne nii ëllëg danga def naka su dul ñu teg la ci yoon ñu naan waruñ la teg ci yoon déedéet ndax day fekk teg nañ ci yoon ñëpp ñëpp a yem ci kanamu yoon lool la ñuy ñaan Sénégal dem ba tollu fa wala sax Afrique mooy ñu am justice bu mel ne bu Amérique nga xam ne Joe Biden ak Donald Trump ak Obama ñoo ci yem amul ku am pouvoir bu toll ne di ko manipuler loolu la ñaan yàlla ñu yegg fa waaye ba léegi nag wax dëgg fa yàlla yeggaguñu fa yeggaguñu fa ci ñi fi ñee ñii ñëwit li ñuy discours yi ñuy tenir wane na ne bu ñu ñëwee rek dañuy continuer waat naj justice bi ku leen neex tëj ku leen neex tëj ji waaw yal na yàlla doole ñu sutura mm, ñu dem rek si dellu si dugg ci suñu tem incha allah